nee leen d'accord ba pare. nee leen d'accord ay triant ngeen. bii groupe bi triant leen d'accord waaw.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

soo ko mënee